ab taalibe bu Cheikh Béthio ni nga war a mel mooy li Cheikh Béthio def ci yow gis nga ab biteelu diwtiir munoo fexe ba saan ba du xeeñ diwtiir biteelu diwtiir doo ko ubbi mukk saan bay xeeñi espérage baa kokaa baa fanta manta ne diwtiir rek lay xeeñ ñun Cheikh Béthio li ne ci moom la def ci ñun àbbul xëccul yaayuwul ñoddiwul sàccul lim moom mu yëfi boppam li nekk ci moom rek la sol ci ay taalibeem mooy yar mooy taalibe mooy maanu mooy jub mooy dëggu mooy yoon xol wu rafet mooy yéene ñëpp jàmm mooy di bokk mooy di terale mooy gore ci sa diggante ak say nawle ba noppi sax ki cant ki ren di bernde togg yu bari di ko séddale te du am xaaj ak seen woo mbooloo mi ngi jariñoo ko nga sant Serigne Saliou ñun loolu lañu Seex Béthio yaree loolu lañu xam loolu it mooy sunu defar ca moom kon boo dee ne ab cantaakoon tey eh, nekk ci cant war la yaakaar naa ne war ngaa kal leneen lu dul di wuuteeg defarug Cheikh Béthio ci ma ngay tooñ ma ngay wax ju ñaaw ma ngay jëf jëf ju ñaaw ma ngay jël alalu jàmbur ma ngay wax waxi jàmbur ma ngay dox jëm ci barab bi jàmbur yan ko seen loolu ab cantaakoon du ko doxee du ko waxee ab cantaakoon daal day mel ni Cheikh Béthio. macha allah wax bi am na solo ñu gis ni que Cheikh Béthio dafa noppaliku dafa mel ni taalibe dañoo xar ñaar ñi bokk ci Serigne Saliou Thioune ñi bokk ci Soxna Aida est-ce que jigéen war na jiite. man nag loolu gis nga riyaa man loolu duma ci wax ndax ñoruma xam nga doomu aadama dangay wax li la ñor man jigéen ju jiiteeg jigéen ju fecc ak jigéen ju tëgg ji jigéen ju noddu ca jàkka ja ilimaan daal di kàbbar nit ñu julli sama yoon nekku ca man xam lu sama yoon ne sëriñ Saaliw Cuun diggal mi taawub Seex Béthio Seex Béthio jur ko muy taawam di doomam taman ma judd ci réew mii boo bëgg léegi at yi bariwul waaye la ma gis mooy képp ku fi mas a nekk xalif général wala nga nekk fi chef religieux ci réew mi boo wane ginnaaw sab taaw moo la donn bu góor ma gis ne kat li ma tàmm ci samay bët te gannaaw man loolu laa tàmm te at yi bariwul xaala ma laaj samay baay ma laaj samay baay ñi ne ma ñoom kat loolu lanu xam ma laaj samay maam ñu ne ma loolu lañ xam ma laaj diine ñu ne ma loolu lañ xam ma laaj àddina ñu ne ma loolu lañu xam kon man loolu laa gëm mooy gannaaw baay doom gannaaw mbukki mbaar man ci sëriñ Saliou Thioune Gueule Tapée laa jébbalu moom ma ñor mooy sa sëriñ moom laa àndal liggéey bii di liggéeyal sëriñ Touba ba noppi it ànd ak moom ñaari yoon mooy dama ànd ak moom ngir baayam waaye àndaat ak moom ngir ndigalu sëriñ Touba sëriñ Mountakha Mbacké xalif général kulli murit mooy sëriñ Bamba mu wax la sëñ Bamba wax lu mu sëñ Bamba wax ko sëñ Mountakha xalif général kulli murit moo nu jox ndigal ñun cantaako nii ñu topp sëriñ Saliou Gueule Tapée ndax loolu mooy mbégam ndigal loolu nag taw féex koy jëfe du xel du xam-xam du expérience du doole du fit du kàddu ndigal li taw féex li ñuy wax taw féex xéewal mooy jëfe jooju ndigal man nag Omaro yàlla suturaal na ma ba ma bokk ci ñu ko jëfe maa ngi sant yàlla looloo ma ñor ci loolu laay wax la garees nag moom ba suba ak jàmm incha allah. waaw ba tey euh, ñu Omaro ñu xamee la tamit si musique ñu xamee la tamit si euh, tag sëñ euh, Cheikh Béthio instant yi ñu gisatuñ la si dara est-ce que da nga ko arrêté topp tele bi wala dañuy xaar da dafa am li ngay xaaram fenn. non non arrêté wu ma ko topp tele bi dafa am ci projet bu ma nekk muy les dix ans d'Omaro ndax yàlla dogal na mille la ñu door carrière bi 2020 muy fukki at te mbir boo ci nekkee. def ci benn at ñaar muy dox rek war ngaa sant yàlla rawatina nag loo def fukki at xale yi am 10 ans tey ñi ngi yor seen i iPad ak seen i iPhone 6 di wuyu di WhatsApp di Snap di Instagram xam li xew ci àdduna sépp am na sax ñoo xam ne boo moytuwul tàmbale noo am série di ko fooy ko kooko série dama kër kon nag yaakaar naa ne fukki at du caaxaan kon tey su ma nekkee ci sama barabu liggéeykaay yàlla duma ci suturaal ci 10 ans bis bu set may jóge ci barab di tàbbi ci barab. yokkute di feeñ te yàlla wax ci alxuraan lañ shakartum lazidannakum ku sant ñu dool la ah cant gi nag dama koy dajale munu ma nag at bu jot ma sant waaye nag bu defee fukki at nag war na maa mën a sant te jàpp naa ki suma carrière chaque 10 ans ma sant 10 ans yi nag mat na ci atum 2020 bi te incha allahu rabbi ñi ngi ci benn projet bu am doole boo xam ne bu confinement bi jeexee ah réew mi dana yëg ni nag sant nañu ca fa ñu jóge ak fi ñu si tey Euh, bu ñu fa jógee dañuy waxtaanee feebar bu nekk euh, Sénégal bu ñu lëmmee sax moo tax léegi instant yi liggéey bi doxatul te tamit am na ñoo xam ne tamit njaboot yoo xam ne seen loxo jotu seen ginnaaw noo gisee confinement bi ak rester chez bi. maam mais parce que mooy sunu jàmp yaram ni ma ko gisee rek mooy di ci bëgg di ci kontaan di ci am xol bu sedd guy ndax mooy sunu njariñ olof njaay dafa am baat bu am solo bi muy wax dafa ne ki la na sangul sa taar la la bëggal. Euh, tey ñi ñu koy digal ñoom ay benn nit lañu kon amuñu intérêt di liggéey di digal ay millions de nit leen lor amuñu yi di dugal ay millions nit leen jariñ ndax bu dee jariñ ñoom benn nit mën nañ koo jariñoo bu dee loraa nga it na yem ci ñoom benn nit ñu loraa ko kon tey buñ lu digalee ñu toog suñu kër muy ministère de la santé ak le président de la république son excellence monsieur Macky Sall dafa fekk mu nekk suñu njariñ nu les sénégalais ñun suñu tawféex ak suñu njariñ ak suñu wér yaram mooy ñu toog ci kër yi ndax feebar wi kat bu fekkoon daa bëgg mbooloo dañu naan génn leen kër yi te dajaloo ndax feebar bi mbooloo lay bañ bu ngeen dajaloo yi mu wér te su boobaa foo toog tiim li nit dina la wër ndax boobaa suñu jàmm yaram moo ñu dajaloo waaye comme feebar bi mbooloo lay bañ da ngay daw li muy bañ ah oui da ngay daw muy bañ ria tey sama koñ bi bu ñu la ne woon génne ngi ci angle bi mais baa dunay tukki doo fi jaar parce que xam nga ne boo fa jaaree mu tufe la tufe yu wér boole ko pombiteer ak soos kon tey di nga leneen lu dul di jaar ci woowu yoon comme nag dañu na feebar wii mi ngi ci angle bi lii la bañ mais danga koy maytu mooy toog ci sa kër ba noppi saxoo set di raxas say loxo ak loolu javel ak gel ak savon euh, takk sa masque boo mënee sol gaa nga sol ay gaa ba noppi toog sa kër affaire bi amul secret lu nuy wàllante la te dajaloo ci mbedd mii di dox ak wax moo ko indi nanu toog ci kër yi man de maa ngi suma kër te it ku ma déggal tey dégg sama kàddu te bàyyi ma xel nawloo mooy di toog sa kër kon gars yi chez vous. Euh, wax bi am na solo mais bu ñu fa jógee gis nañ ni temps yële waa Medina defoon nañ ko fi sax euh, nit ñi jug wax ne pour ñu toog seen kër benn lakk bu ndaw am Medina ñoom ñëpp memb naan def ay vidéo naan dañoo namm génn ñëpp namm day génn mais bu ñu waxee rester chez vous war nañ mën a toog seen kër. dëgg la am nañ toog ci kër yi rek gis nga Medina Gueule Tapée Fass Sénégal Dakar Kaolack Fatick moo ci am sunu njariñ la. jariñul gox bi bàyyi gox bee toog ci kër yi mënta jariñ waa géejawaay di lor waa parcelle mënta jariñ waa ginnaaw raay di lor waa sacré cœur c'est pour tout le monde nanu toog ci suñu kër yi ndax mooy sunu njariñ loolu daal mooy li am solo Ria. Euh, wax bi am na solo mais bu ñu fa jógee dañuy euh, si dañuy dem si Sidi Diop parce que coow li bari na torop ñu bari nee nañ yow yaay ménageur am léegi yow yaa ko yor yaa ko yor yaay ménageur am yow yaa nekk ci ginnaawam ñu bëggoon nga leeral ñu ko rek. Euh, nit ñi moom riya kenn mun leen tere wax euh, te nag dañuy sant yàlla ba ñu bokkee ca ñuy wax man moom xalaatu moon sama dund bi di dund ba xëy faatu te lu wax ci man ñaanuma ko yàlla ndax ku wax ci yonent bi muy làmmiñ wax ci sëñ Bamba wax ci Seex Saaliu Mbàkke sama sang bi wax ci Seex Béthio sama yaakaar boo fi bàyyi man baaxuma kon man sama mission faw nu may waxal daa bokk ci man day sama yokkute day sama sàkk te daa bokk ci sama yoon waaye nag boo bëggee fu nu wax nga weddi bis dana ñëw ñu wax te doo mën a weddi ñu ne dëgg la eh, Sidi suma doom la coow li bari na wax ji bari na du nangu di ci wax téléphone duma nangu di ci wax ci mbooloo du ma nangu di ci wax jàkkaarloo waaye comme lii internet la te daa wër àddina mm-hmm. dinaa ci leeral ñaari mbir rek ngir ku ci jot mën a xam ne mbir mi nii la demee di sama doom la li war a mu doon sama doom mooy damay turandoo baayam ba noppi di xaritu baayam maag baayam ñu ànd ànd bu yàgg démb tey soog a ñëw Serigne Saliou Serigne Cheikh Béthio boole ñu cant gi baayam yar ma di sama magub taalibe bi may door suma carrière en 2010 2011 premier single bi ma njëkk def di sant laa daa gën a wóor Serigne Saliou sang baa ngi baayam Omar Diop moo ko arrangé. kon tey nit ñi bu ñu xamul faw nu wax waaye yow it yërëm leen la nga leen yërëmee mooy nga jéggal leen te foo mënee leeral nga leeral kon na leer waaw foo mënee leeral nga leeral Sidi su doom la tey bi ma bàyyam dénkee jëmmam ji na ma comme yàlla dogal na yaa ngi ci milieu bi yaa ngi ci télé yi te moom suma doom la di sama taaw aw ku dul moom te waroon na ci man mën na ci ginnaawam di ko taxaw waaye yàlla moo dogal la muy yëngu jubluwuma ko comme yaa ne nag dénkuma ko ku dul sëg jëmm yaay baayam dénk naa la suma doom lépp lu ma war ci moom war na la ci moom lépp lu ko war ci man war na ko ci yow ànd leen te yàlla tax ak ngir jëmmi sëriñ bi ñu boole sii di jël dénkaane bi bu ko baayam joxe at 10 pour cent sii di doll ci yeneen 90 pour cent muy 100 pour cent mu yenu dénkaane bi gëm dénkaane bi dëggu it ci dénkaane bi du yeewu te reketiwul téléphone am woo ma naan papa naa du tëdd ci laal tërkitu téléphone moo mën a papa maa ngi tëdd lu muy wax dana ma laaj suma xalaat lu muy def dana ma laaj samay xalaat fu muy demit dana ma ci laaj sama xalaat dénkaane yaakaar naa ne fa la mën a yem lu ma ko digal mu def lu ma ko tere mu bàyyi loolu laa sekk ak ki nga xam ne mooy Sidi. non non non du ma ménager u Sidi